Talla Ndiaye cinquième combat ngongu Bébé Gouy Gui à gauche Kele Mansour à droite itredi génnal géew bi xoolal lii ku ñëw lii Talla waa kii kii lu ko dal waaye waxal waxal ca kaw xoolal lii xoolal lii lii lii xoolal fa mu laxas fa mu dugal tànk ba waaw daanu dina fa xanaa di kenn dina daanu ñu koy jeex waaye lii ana jóg sukkur bi yow mi Clémenceau doo ko sukkër bi daan na ko waaw Clémenceau daan na ko daan na bébé guy gi nee bu kenn ñëw nee bu ko kenn laal bu leen ma laal waay Clémenceau waay bu ko laal na nee ku daan sëq sànni tey ngay jeex di jeex waay wax waay jee bëri nga fiy gis Talla Ndiaye lu doy waar am lay bu ñu def ay ak caabi ba pare ngoom la ngoom ngay seen ak caabi ya ca kaw. waaw tëju ñu ma ci Babacar. ah buñ la ci tëjee du ba ak i sondel. est-ce que nekkul lañ ci tëj. xoolal sondel ci loxo bi. est-ce que sondel yi sondel yi xoolal sondel yi. way way man <laughs> ngay gis madun Diouf ay sondel la ngongu sondeel ak ngam yaa gis mu ngay tëj ngomb la mu ngay tëj. waaye mu ngi tëj waaye lii doy na waar di waaye sëñ bi may nu ni yow tëj rap rap tëj ee eh, tëj na ngomb la waaye li doy waar mbër mi boppam Sénégal la ko tudde mbër ma la féete ak droite Sénégal la tudde boppam nga ne. mbër mi fii la droit. waaw Sénégal de la tudde boppam Modou. nga ne lan la ah, daanu na de ëpp naa wax moom. doy na war de na fexe na na de ñun. du ma nga noo bokk ci réew mi moom. waaye joxal Talla mu wax loolu mu annoncé ko. Talla Ndiaye mbër mi Sénégal la tudde boppam. man du ma ko bañ ku ma jàpp. Ah, na fexe ba bañ a daanu de moom Sénégal. Momar daal lay bëreel. Sénégal nag mu nga jógee équipe bi nga xam ne mooy école de lutte waaw nag tëngeej mbooloo waaw waaw moom a jóge benn baraak waaye mbër mi Sénégal la tudde boppam waay fexeel ba bul daanu de lu nekk mu ngi ci biir Sénégal Talla Ndiaye wax leen moom ba bu mu daanu ñu ngi ci biir réew mi Sénégal taanu moom ëpp naa am moom Babacar yaa dugg ci wax jooj de. nga fexe ba bu mu daanu nag. sen laay wax sen. waaw sen a gën a wóor. mën a yegg ca gaal ja. sen ja laa gën a wóor. waaw Babacar Leewtoo TV wala Lutte TV bo bu la neex waxal yépp laa bokk yëpp samay kër la réew mi sax bokk naa ci bokk mbër mi daal Sénégal la tudd waaye na fexe ba bañ a daanu nun ñëpp dañoo bokk ci réew mi nag. nanu sóoraale sóoraale nu Sénégal ah mbër réew mi la tudde boppam moo féete droite waaye Sénégal ay sunu gaal te man fuy ko fi te mënoo joow demal ba noo oh. réew moo xam ne génne na de grand somme nay waxati ko ndeysaan ana Senghor ana président Lamine Gueye ana Blaise ana Ngalandou Diouf ana Serigne Touba eh Cheikh Ahmadou Bamba nga Touba. ana waay Xaadim Rasul. maam limaam moo ngi fii Yoof. waajaa nga Njaasaan bu kutte. eh ana maam Maodo ca Tiwaawoon. bu oh, bu ma tàngaloo moo nag. waaye demal Medina bu ma tàngaloo moo nag. ana waa Léona Niassène. bu ma tàngaloo moo nag. ca dama eh, noppee. eh yal na yàlla yokki leen taaf ñu si barke. ndeysaan eh waay Babacar sama yaram a ngi taw. rajo bu mag bii ci eh, bi eh ndaanaan bi. wala Liberté 6. kenn du yow. Eh, du ma dugg te Sénégal kat naa la wax roi des arènes bu ne fii la daanoo bëccëg. wax nga dëgg de billaay kon day roi des arènes yi ah mais Modou combat roi des arènes da ngi waaj de. Demba Diop bu fekkoon ne suuf si du naan ay. Sénégal daan na. Sénégal daan na Sénégal daan na. waay taala daan na nu y' a problème kay. amateur yi ñoo ko laaj ñoom président Doudou Diagne Diecko ñoom grand Cheikh ñoom ñoo ñoo ni leen ko fii ñoo ni leen ko fii rek loolu du problème. mais Sam Sam loolu est ce que du problème. waaw mais xanaa teel a rek dagg si biir toog ndànk rek incha allah loolu wax ji. Bada Dione loolu du problème. ah mais problème kay ku ne saa yi nga ne pataas ma gënal pombiteer xam nga moom sa lamb ah stade yëpp ñu ubbi ko nga tànn stade bi la gënal. wax dëgg yàlla loolu du problème stade bi dañu ko ubbi Demba Diop dañu fa doon teg am di teg fii ku ne da ngay teg fi la nekk arène bi nag du force te arène bi nekkul nit dimanche kese même bu dimanche jàllee arène bi dafiy nekk lool nit ñi ñoo bëgg polémique rek mais loolu nekkul dara. démb damaa dem yaraax man cooto laa taxaw ndax mbooloo mu bëri macha allah garga mboosa wala Moussa Ndoye la mu mobilisé tey am na mu ku ma yónni fële parcelle ca garga. loolu maanaam sénégalais yi dañ ne ma laajul Pape Abdou Fall nan lay organiser loolu pour dimanche. non c'est pas compliqué ah. c'est très simple. stade bi la ñuy boo xoolee ci sama site ci sama page dama ne prévente 3000 la bisu lamb ja 4000 laay jaay samay billets. yow da ngay tëgg soirée wala. solution mën na am amateur yi su teelee jënd billet avant dimanche. 3000 yi jeex. ñu yóbbu leen arène nationale suñ teelee jënd liñ defar rek bu jeexee xaju ñu leer na bii jeex na xaju ñif ñu yóbbu leen arène nationale man maa la wax loolu. prévente daal commencé nañ ko def. 3000 la. bu dee nag jàll na boo ca bis ba samedi 4000 la billet yi waaw ñu am làmb ju rafet mu taaru gars yi toog ñu def suñu show. mais prévente bas na am ci lamb. bii am na prévente moom. et puis dimanche loolu ñu indil fii à part Garga Moussa Ndoye. dama ne lépp loo xam ni Mayende Babou ngoom lépp loo xam ne day neex rek dana koy indi. ana Ama Baldé. waaw mu nga këram. ana Tapha mu nga këram. dégg naa boobu de moom yaa nga ca sori nga ca lool. non non soreetu ma ci de. ndax ah dañoo taxaw ma taxaw rek. kan moo taxaw ci ñoom ñaar. Ah, pour être honnête côté Tapha Tine la. lu taxaw indi taxaw ay xaalis la wala. waaw problème mu koppar xëy na li muy laaj man àttanu ko mënu ma ko. waaw dama ci doon jàpp rek pour faire saison bi buñ dee nag gis nañu ni mën nañu am lépp loolu nañ dem jëli ko. te yow bu dul boobu kon saison bi da ko fas yéene tëj ak bii wala. yàlla xam. xanaa dañ nu jox boog bu nu war pare ndéwénal. waaw yàlla baax na. risquement indallah wërsëgu jaam yàlla. pare si ndéwénal la ñuy laaj. mani buñ ko waree joxe rek dinañ ko joxe. si ta Papa Sow. combat bu neex la de. yëg ni si ñoom Sa Thiès. combat soo ñu jox boobu Yékini Junior Sa Thiès man daal ca la ma nekkoon wax naa ko ba ma taxawee nee naa taxaw na li ci des nag nañ leen ko bàyyi ak yàlla. kon prochain dimanche. bu neexee yàlla ngeen ñaanal ñu nag. billet yi daal 4000 la na leer waaw 4000 la prévente bi daal moo doon 3000 bu ñu paree ci prévente bi 4000 la fàllu saaba gi nii dama leen ni billet 3000 la commencé nañ ko jaay bu ñu demee nag ba bisu làmb ja 4000 la. na loolu leer na a jënd daal laa gis daf ta poos bu la jour nga teel a ñëw rek day togg ay añ. kër Pape Abdou Fall. day togg ay añ fii ci stade bi. kañ euh, dimanche le 28. pour ñuy jóge ci banlieue bi. am na ceebu yàpp am na maafe am na domoda am na suppu kanja am na ciwu buret am na kaldu. am na daal lépp am na laax sax day am fonde ak ruy caakiri xanaa sëñ bi bokk na ci yow de xanaa da daan togg man na bawol bawol la ah moo tax foo dëkk ci bawol maa nga dëkk dëkk bu ñëw ak yaay ca ndondol ah ndondol amoon njama amoon mënoon bëri trop yàgg naa ki mbër foofu waaw na am mbër waaw me góorgóorlu liggéey bi da ci bokk gis naa ni ngay def euh, bu yàggee lamb ci seen loxo lay mujj ay wayul suñ papa yi. Pape Saly da ñu tàmbal loo xam ne vraiment nit ñaa ngi lay xaar nag. yow ah ñu ngi lay xaar waaye ay. yaay porte parole promoteur yi la ñu wax. organisation bi xam naa ne mu. dimanche dégg naa fi Pape Abdou Fall wax prévente programme bi noonu lu ci mën a dikkale yow. waaw Babacar li ñu la mën a waxee daay mooy xam nga l' association des promoteurs à la coutumier d' organiser au stade Iba Mar Diop. am nañ habitude organiser universitaire Iba Mar Diop boo xoolee Kañ mi ngi ci 14 ans boo xoolee Fallou Ndiaye jege na 10 ans Assane Ndiaye romb na 16 ans Pape Abdou Fall romb na 10 ans moom tam kon ñun ñëpp am nañ expérience bi mais bii cas exceptionnel la incha allah rabbi ku ñëw fii sam dimanche di nga fi gis méthode d'organisation boo musul gis ci làmb fii ci stade Iba Mar ndax làmb wax fi ne lii musu fi am yombut waaye Iba Mar dinañ fi indi lu fi musu am te incha allah rabbi dinañ fexe ba képp ku dagg sa billet di nga seetaan. te kenn du la empêché incha allahu rabi dinañ organiser journalistes yi organiser tëggkat ba benn encombrement du ci géew dinañ wan Sénégal ne Moussa Ndoye Garga Mbossé xaj na fii waaw mais assisté naa su lay def amat seen fii pourquoi pas euh, Moussa Ndoye Garga Mbossé duñ fi bëre dinañ fi bëre te dinañ assurer sécurité avant pendant après GMI dinañ jalonné ba banque ba jalonné ba poste Médina biir stade beeg bitig yi benn problème du am incha allahu rabi jàppoo ba tar na eh daanu kaat appi am na ah way def nga kaat appi bu yàgg kaat appi Talla Ndiaye waaw daan na de kaat appi jëli la kaat appi jëli la daanu nga. ngeen jàkkaar lool ñu nga dër di lewaatoo ñaari pied droit ay fausse garde lañu Caatu Waalo Petit Baye Fall Petit Baye Fall la wane ginnaaw yor ngeen mu Lagos ñu ngay lewaatoo lamb ji daa amee caatu waalo ñam droite caatu caatu waalo ak petit Baye Fall ba tey loxo jógagul ñu ngi ne jàkk di xoolante tibb na suuf moom caatu raxas loxo ya daal di

a xam nga ne Zalba moo jël sa sees Zalba jël sa sees Talla jël sa place <laughs> ah. <laughs> ah dégg nga ci Zal yëfi Pikine lay jaay de ah Zal doy waar rek yéen a bokk Pikine Zal kon ngoobu Zal ginnaaw raay la dëkk Babacar xam nga ngoobu Zal ba maa xam ngoobu laay Zal lan mooy ngoobu ngoobu mooy loo def nii <laughs> voilà merci Babacar xam nga ngoobu ak sa benn loxo Zal dama ngoomu. Zal bàyyi lee xeex. eh door na ko. Eh, droite ba dal na dal na ko. oh Petit Baye Fall. Petit Baye ku. Talla Ndiaye mu wàcc. mu daw fekk ko fa muy tëttëri mu yegale ko sànni ko. Talla dafa suivre mbër day topp ak son. waaw Babacar lii laa xam ci. mbër day lii laa xam ci ay mbër yu ndaw. Petit Baye Fall loolu la def. da def action moo tax ne ko fukki droit. wala dem gàng mu tëntër mu daw fekk ko fa. yàggali ko daan ko ci libru xoolal ñu ngi koy yóbbu. Talla Ndiaye xool bant bi rawaan yor xoolal lii lii am reen la am na lu mu ko sànni mu yàlla ko xool lii xanaa lii moom tànkab kinaara la wala bob lan ak dunguy lay lay la la cey lam rawan rawan loo teeni waaw maa ngi sant yàlla rek sant na ànd naa samay mbokk waaj nañ ci waaj nañ ci fulla commencement def nañ ci fulla ak fere instant yi suñu borom moo def dañuy ñaan suñu borom defal ñu dam ku may bëral yàlla moo ni boole duñ ay noon ay adversaire lañ mais li nga li nga yor nii lan la <laughs> waaye sant rek ci kanam ci kanam lépp wax amul lépp yoo la def sa poos rek yóbbu eh, jël nañu rawaan rawaan dañ lay daan daan nañu rawaan waaw way rawaan daanu nga bu yàgg waa parcelle yi leen dal waa parcelle yi ñu seen problème Talla Ndiaye nga de daan daanu nga rawaan wala rawaan daan nañ la. ee daanu na ay waay daan nañu ra ñu ngi lay delloo siyaar baax sama sëriñ sëriñ Babacar maa ngi lay siyaara bu baax euh, di kontaan ci fekkante bi ma fekkante yow fii ak mboolem ñi nga ànd ci liggéey bi di la bégee bu baax saa su ne di la ñaanal it yàlla fu nu mën a ne ñu ngi lay bàyyi xel di lay ñaanal yàlla ndax liggéey bu rafet ñoo ngi lay siyaar wér wér wér tey nga ñëw làmb ànd ak Daba Boye Adja Daba Boye sax laay wax seen diggante yéen ñaar lan la waaw Daba Boye suñu borom danoo boole li ma booleeg moom na ñaar dong la dama bëgg sëriñ Babacar mu bëgg Serigne Babacar Serigne Babacar ga mu bëgg mu bëggale ko Serigne Fallou loolu boole nu ñu ñaar nag ñu nekk nekkin wu rafet woo xam ne nu di teew ci lu mel nii comme ni ma la ko waxee woon keroog waaye moom day kenn ci man te du ma bëgg mu wéet fu mu mën a ñëw rek damay ñëw wéttale ko ñaanal ko yàlla sunu borom dimbale ko mu dugg génn ci jàmm incha allah loolu war a sunu ànd maak moom. kontaan ci gën a bég ci yow Serigne bi maa gën a ci yow xam naa danañu daje incha allah. jërëjëf. ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax sëñ bi di la kontaane. waaw kii la sëñ Babacar lañ koy wax rek. di ma ne kii moom Babacar lañ koy wax di lay ziar bu baax. Babacar yow maa la sopp ndax man sëñ Babacar rek laa bëgg. at mi yëpp xam nañ ko te damaa doole daf maa dimbali. Adja Daba Boye tey ñëw ci làmb tey lu indi Adja Daba Boye ci làmb tey. ah làmb ji xale yee ma yëg bëgg ma di daw sama yaram moo tax ma ñëw fii euh, du ma koy def. du sama habitude waaye damay jog di def ndax nag aas bi wul te judd bi yàggul. dañuy dégg Adja Daba booy borom jinne yi lu waral loolu. waaw li waral loolu mooy damay yónni jinne muy dem maam am xam-xam loolu doon xale xam fi ma ko teg ñu may te di ma dee moo waral man mii ma ne maay borom jinne yi te lu ma leen digal ñu def. mbër yi mas nañ am na ñu ciy ñëw ci yow ngir wàllum sàkku ñaan ak yu mel noonu. mbër yi doon ñëw dañ doon làqatu ak di damaa bëgg nag ñu ñëw def daaj fang ma fal leen ñu yan mbir ñu doon ñëw di làqatu. Ah, du ma leen tudd nag habitude ma loolu duma leen tudd waaye doon na ñëw di def dajji fàng ma ñor leen lool. tey noo gisa làmb soxla mbër yëpp ak kudul mbër yëpp na ñëpp ñëw xool. am nga mbër. ndax xam naa mbër. ñëpp ay sama mbër. kontaan ci yow. kontaan naa ci man la wax amul jëf moo fi des naa moo xam laa wax sama kosu moo a digal nee na ma sonko bu lay mbot nga yokko man xam sa cosaan maa ngi gërëm ñëpp nag sama gars yi ñoom sook jetli sonn na si combat barki alxuraan karim waa xam sa cosaan ñëpp ñoom sook ñoom moo talaa xam nga ma diggee Cheikh Omar waa Padoa Moussa Koné sama international bi xam nga jàpp na si combat bu baax ndax tey bu woon moom mu ñaaw damaa teg la ñetti defe ñëpp bàyyi ma billaay bu dul woon Moussa mu ñaaw lépp moo ma ko defal lépp barki seen naa wax maa ngi gërëm sëñ Abdou Karim bu baax a baax a baax ak sëñ Abo ak sëñ Issa waaw billaay yow dinañ gën waxtaan dinañ yaatal. Talla grand combat baa ngongu anti ngeen jàkkaar lool mu féete droite anti écrit Ndakaaru Boy Diop école di sakku xam-xam moo féete gauche wane ginnaaw Boy Diop. sàkku xam-xam Birahim Ndiaye ca parcelle parcelle nag temps yi moom dox la wuñu moom parcelle daal xaw ma fa xew waaye fan yii moom ah seen daanu bëri na rawaan na léegi moo bëri spécial bi moom la ñu daan léegi waaw waaw na waar waaye arbitre baa ngi wax ak day déglu sixième am am na lu arbitre biy déglu. waar lamb ji taala ñu ngi jéglu ci loolu kuy jàll la ñoxor mu ngay laaji sixième pare nga pare nga eh, booy jub gaaw na di arbitre bi de tuuti ñu dóor ko booy jub ak anti ga lay daan waaw way ah waay du benn xool mbooloo anti indi xool mbooloo anti mi xool mbooloo anti mi waay daw laxasu taala njaay baraake taf mu daanu. loolu prime dib la. waay parcelle waay parcelle lu leen dal. ah doy na waay de baax waa parcelle. waa parcelle lu xew. xool waa Fass. antegri Ndakaaru. doomi Fass. xool mi mbooloo. parcelle am na lu fa dugg fan yii de. eh waa lu leen jot. waaw di la fay waaw Leewtoo. production di la sant bu baax di la gërëm. gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant suma sëriñ Baye Karim Fall di yërëm suma nday di yërëm suma nday. di yërëm suma maam di naan jërëjëf Serigne Touba di sant waa Fass Gueule Tapée Colobane Grand Dakar Asalem Fass AIC Fass Fass Delorme Asalem Fass Ferñeent di sant ñëpp waa Medina PT bàyyiwuma kenn Souleymane Capo del Capo l'international Assane Diouf Thierno Ndiaye Daouda Seck Mame Boye Diouf Tante Alice ñoom ñëpp maa leen sant leen gërëm Cheikh Omar Sy waaw les douzième Ndiago ñoom Cheikh Bathily ñoom ñëpp di leen sant bu gërëm waa ji ñaa xam a ñeme moo tax mu def loolu bu dëggaloon bopp ko waxoon dama ko waxoon boo dëggaloon sa bopp dama ko boo dëggaloon sa bopp barke Serigne Fall duñu bëri deux minutes moom kay est-ce que bëri ngeen deux minutes bëriwuñu seconde bu taxawoon mu gën a ñaaw léegi foo ci kaw laa jëm xam ngeen ñi war a bëreel xam ñan xam ngeen seen